Euh, dama ni décret 2011 bi régulier wul et waa Sénat a comme en particulier président Sénat ci boppam nangu na ni effectivement ñoom seen bopp ñoo juumoon et loolu euh, damay wax sama aqlaayu taala mm-hmm. dans le cadre du comité de veille ñu ñëw ma ànd ak président Madine Ndiaye Babacar Fall ak Youssou Dao mu wax ci bureau ñu koy remettre rapport mu ni ah njaga ñun tax maanaam bu ñu maanaam daal bu ñu bu ñu teg nekkul ci yoon njaga tax daf ñuy rappeler à l'ordre loolu immunité la te kon kan mooy Doudou Ndir Doudou Ndir mm-hmm. magistrat la ancien président de la cour suprême mm-hmm. ma rappeler leen ni euh, donte am na ñaar ñu démissionné mais da bu ngeen renouveler euh, quatre ngeen waroon renouveler léegi ma ne la juillet 2015 la gëj a am renouvellement kon c'est-à-dire que renouvellement waroon na am 2018 defuñu ko mu war a am 2021 defuñu ko mm-hmm. ci diggante bi Mouhamadou Mbodj bu forum civil gaañu euh, ambassadeur Seydou Nourou dialogue bi mu mujjee fekkee ba mu présider dialogue politique bi ñu nommé ko Sénat octobre mu jël fonction en décembre 2018. pour eggali mandat ki génn àdduna. waaw léegi bala euh, mandat bu jeex noo koy terminer. fekk mandat bu jeexoon na déjà. de 2015 okay. la ñu renouveler. Mm -hmm. je comprends je comprends votre raisonnement. kon 2018 bi ñu bi euh, dañoo waroon renouveler renouveler wuñu kon Seydou Nourou bu ñëwee. amul lu muy terminer mandat Mbodj. Mhm, donte Mbodj dafa gaañu. Mhm. parce que jeexoon na logiquement parce que jeexoon na ba pare. mais principe bi gën a am solo. te ñu koy xeex xam nga tey décret bi irrégularité yi soo koy lim doo doo doo fi jóge mm-hmm. mais principe bi nga xam ne moom la njëkk a violé c'est le principe de la permanence de la structure et li ma ko tudde esson coloraire mooy euh, renouvellement bi ak durée mais irrégularité yi dafa jël décret bi en fait on est resté la Sénat est resté dans l'irrégularité de nombreuses années durant sénégalais yi ne teg di seetaan na lii nii dafa ñëw rek fesal loolu yëpp mais c'était déjà le cas depuis de longues années waaw xam nga xam nga wax dëgg yàlla société civile mm-hmm. euh, bi ma bokk suñu rapport euh, bi ñu def 2019 présidentielle wax nañ ci euh, ñu dem di nga euh, il y a quelques semaines dañu def benn retraite société civile yëpp daje. Mm-hmm. ñu xalaat ci élection yi dispositions yi ñu ci war a jël dans le cadre de ci ci ci COSCU ñu boole wàll ci ay pacte ci benn programme bi question bi ñëwaat ma ni leen. est-ce que xam ngeen ni dialogue bi passé dialogue politique bii. tax ñu modifier code électoral ba indiwaat Khalifa Sall ak Karim euh, Wade Karim Wade mhm. est-ce que xam nga ni ci point yi ñu déggoo renouvellement Sénat bokk na ci. bokkoon na ci mais on n'en a pas parlé du tout waaw léegi Mamadou léegi pourquoi modifier euh, code électoral du moo gën a moo gën a jafe parce que procédure la. Mhm. bañ koy voté alors que lii décret la rek booy jël defuñu ko léegi pourquoi maintenant nga toog ba benn moment parce que Sénat euh, saisir nañ ko. ci benn contentieux mu addu user de ses pouvoirs. Mm-hmm. wax DGE ni ko maanaam euh, da nga war a appliquer décision bi nga xam ne moom la président. maanaam c'est le timing qui dérange dans cette affaire en fait. justement le moment choisi. justement non seulement timing bi. Mm-hmm. mais bu fekkoon tax en fait def nañ ko. même bu dul timing bi xam nga nit mën na def dara. Mm-hmm. nga ñaawlu ko waaye mu jàll mu dëppoo ak yoon. mais non seulement rafetul. rafetul mais aussi dëppawul ak. parce par ñoom ce mooy rafet ou rafet président amul lenn loo xam ne violé na ko parce que ñoom yow fi fi ñu dakkarul ak yow mooy euh, li président def yëpp yëpp yëpp yoon da ko koo may xëy na nag li déranger loolu du loo xam ne euh, lu ñu mën a teg teg loxo la concrètement xam nga dama ni la article euh, bi nga xam ni article sept. Mhm. alinéa trois moo ni mandat membre Sénat yi juróom-benni at la. mandat boobu dañ koy renouveler au tiers. Mm-hmm. maanaam donc ñetti at yu ne. war nañu soppi. ci fukki euh, membres yi ak ñaar. Mm-hmm. ñeent dañu war a génn léegi nag. yow mënoo ñëw yow mi nga xam yaa waroon jël décret nga toog ñoom seen mandat nga waroon renouveler 2018 nga nga bàyyi leen ñu organiser élection présidentielle. Mm-hmm. organiser élection euh, locale. organiser élection législative ba war a ba ñu toog à moins de quatre mois pour ñu organiser élection présidentielle parce que simplement jël nañ décision boo xam neexu la nga génne leen léegi nag. mais mais mais Ndiaga euh, seen président wàccoowul ak yoon mais vous aussi la société civile les observateurs ak les lanceurs même euh, voilà fan ngeen nekkoon pendant tout ce temps. dëgg la kaas ngeen wax ngeen mais defu leen ci li war réellement. mais bien sûr li ñu mën mooy di àddu chaque fois ni en fait dañu war a renouveler man jëm dama dama mës a wax ni euh, et à la vraiment des membres de la Sénat parce que xam naa fa nit ñu baax ñoo xam ni ñoom seen bopp. mun naa ci lim ay tur dañ ma doon wax ah njaga suñu mandat jeex na waaye ah ñun dañoo ngi xaar parce que xamal lu tax. Mhm. décret moo leen nommé. mais un mandat qui se termine aussi. waaw léegi est-ce que ñoom non attends président mooy jël décret léegi seen mandat jeex euh, deux mille mille dix-huit la ñu waroon renouveler. Mhm. il faut que ma leer aussi foofu benn affaire. oui euh, ñu bëri dañ naan euh, Doudou Ndir mandaam jeex na président Doudou Ndir. Mhm. mais nañu def attention parce que renouvellement au tiers bi. donte bu dafa remplacer nit mais moom ñaari décret moo ko nommé Doudou Ndir. Doudou Ndir d' abord bi ko def membre Sénat. oui ak décret bi nga xam ni moom moo ko def président Sénat. et il faut aussi foofu ma leeral parce que am na. question le président son mandat n' est pas renouvelable. waaw no xam nga avant d' président il faut d' abord être de la Sénat. moom mu ñëw remplacer Moussa euh, Moustapha Touré président bi démissionné en 2009 mm. euh, bi mu ñëwee. ñoom xam nañ ni principe bi ñuy appliqué mooy bu ñuy renouveler ñi gën a yàgg foofu ñoo war a génn. Mhm. loolu moo tax euh, bu ñu waroon renouveler tey bu mujj bi bu fekkoon ni par exemple dañoo renouveler au tiers xam nga ña ña ñeent yiy génn xam nga ñan lañ. ñi fa nekkoon depuis kañ. depuis depuis le bi muy 2005 euh, muy euh, pré vice président Pape Samara Diop. Mhm. muy Issa Sall journaliste. muy gouverneur Amsatou Sall ñeenteel bi xam nga kan la. kan Mouhamadou Mbodj bu Forum Civil. bi génn àdduna bi génn àdduna. kon tey bu ñu tollee ci jamono bi euh, mais lenn lu bëgg nga leeral ko rek bala nga avancé euh, renouvellement boobu di am euh, ndax xam nga da nga ne ma du du ndiir ñaari décret ñoo ko fa def bi ko def Sénat bi ko def président bi ko def Sénat mooy que ne mandat bi six ans la maintenant pour le président lan lañ ci wax foofu. waa xam nga président dañ ni. maanaam bala ngaa nekk président. Mhm. dañuy dañ da ngay nekk membre Sénat maanaam dañuy nommer douze ba pare. nga nekk Sénat ba pare. léegi nag ci biir douze membres yi ñu tànn ci kenn mu nekk président ba pare toftal ci ki nga xam ne moom la ñuy wax secrétaire général. Mhm. foofu laa doon ñëw day. le renouvellement au tiers dafay concerner le président. renouvellement au tiers day concerner le président non pas en tant président mais en tant membre. tant or puisque moom am na ñoo xam ne 2005 la ñu ñëw moom mu ba pare du nit di ko njëkk a génn di ko njëkk a dem. Mhm. c'est pas beneen bi mooy est-ce que xam disposition boobu article 7 ci boppam bi wax ni maanaam ci ñoom la ñuy nommer euh, euh, benn benn membre mais article boobu moo ni euh, moo ni dañuy nommer un secrétaire général xam nga tey am na débat bu commencé ñëw. Mhm. ñu naan secrétaire général maanaam jeex na mais le secrétaire général n'est pas membre de la Sénat. il n'est pas concerné. il n'est pas concerné parce que loolu administration la. Mhm. donc Ndari Touré bi ñuy joxoñ parce que man dëgg laay wax de fait de man man dëgg laay wax. Mhm, bien sûr c'est important. Ndari Touré il n'est pas membre de la CENA. bokk ci parce que disposition bi dañu la membre CENA yi douze lañu. Mhm. waaye ci bi ci ci ci ci douze yi dañuy nommer un président qui sera assisté d'un vice-président vice-président vice-président membre lay doon ak. mais SG bi bokk ci ak un secrétaire. ah léegi Ndiaga fu mu bëggoon nga ñëw ci mooy euh, ce débat autour de kan moo war a nekk membre CENA. parce que là on nous dit que am na ci ñoo xam ne euh, leur nom euh, est familier au leur nom sont familiers aux Sénégalais parce que am na ci ku ñuy tudd Cheikh Awa Balla am na ci aussi un autre bu ñuy tudd ne nekkoon na. Euh, voilà non pas conseil constitutionnel am na ko xam ne nañu il était même le candidat de l'APR ci élection locale yi passé maanaam quelqu'un qui est coloré politiquement même bu fekkee ne xëy na éloigné wu na champ politique bi ndax am na droit bokk Sénat. loolu loi bi moo ko leeral moo ni képp koo xam ni nekk nga membre. benn mouvement politique wala parti politique waroo nekk membre Sénat. Euh, am na aussi leneen lu mu wax. mu ni mhm. képp koo xam ni da nga nekk maanaam ku jige nga nekk frère wala sœur wala goro candidat élection présidentielle. Mhm. loolu moo taxoon ci à l'époque Moussa Moussa euh, Moustapha Touré ñenn ñi di ko diingat alors que loi bi li mu wax par rapport ak Mimi li ñu mhm. wax mooy candidat à l'élection présidentielle tant que nekkoo maintenant frère candidat à l'élection présidentielle mën nga nekk membre euh, et loolu tax dañu lu ñu wax mooy mooy président Sénat. Mhm. d'accord alors tey xam nga tey li nga wax noonu xam nga am na leneen koo koo xam ne membre conseil constitutionnel. mais il avait démissionné la ñu wax. waaw mais démission bi dafa am fu ñu koy constaté. ah bu démissionné. pour le cas présent dafa am fu mu war a jaar. ñu gis ni ñu publier ko ñu gis ni démissionné na. kon tey xam nga tey man. bëgg mu bàyyi ba ñu ko ñu sax ñu ne démissionné na maanaam décret bi mhm. dafa bëri ay irrégularités. et eh, xam nga loolu lan moo ko indi. Mhm. parce que dañ ko def ci parax paraxee maanaam ñii def nañ lu leen arrangé wul. il fallait les les changer ñu ñu ñu ñu dégommé leen.